أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen ziyaara di leen baalu àq di leen baal àq fas yéene dellu si ak yéen ci seen al burda di ñetteelu buntu bi di wax ci fi madxi nabi sallallahu alayhi wa sallam buntu bi nga xam ni daf ci tagg yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi waxoon ni ci bi muy jeexal bunt bi weesu mu ni wala tazawwadtu qabla almawti naafilatan walam usalli siwa fardin walam asumi dafa waxoon ni moom yóbbalu yóbbaluwul lu njëkk muy faatu benn naafila julliwul benn lenn lu weesu farata wóorul tamit lenn lu weesu farata mu ni kay kon zalamtu sunnata man axya zalaama ila an istakat qadamaahu durra min waramin mu ni comme que def naa loolu kay man zalamtu tooñ naa wala lëndamal naa sunnata man yoonu ka nga xam ni axya dundal na ak zalaama lëndam gi guddi gi ila an istakat dem ba jàmbat xadamaahu ñaari ndëggoom ak durra lor min waramin ngir neewi moom dafa wax ni moom naafila wut wóorul farata wóorul lu dul kooru farata kon kay wóote nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ni moom dafa daan dundal guddi gi ba taxaw ba ay tànkam di neewi di naafila ci ay naafila kese ginnaaw bu jullee farataam ba pare moo tax mu ni wa shadda min saxabin axshaahu wa tawa taxta alxijaarati kasxan mutraf al adami mu ni wa shadda te takkoon na moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam axshaahu ay ay wetam mooy ay balget wetam yi nii min saxabin min saxabin ngir xiif wa tawaa mu dal di lem kasxan ay leggam mooy suufu biir gi noonu rek kasxan ay leggam taxtal xijaarati ci suufi xeer mu jël ay xeer takk ko ci biiram mutrafal adami ngir mu nooyal ab deram gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf daan xiif ba di dimbandikoo ay xeer ngir mën a taxaw takk ko ci biiram te jamono bi muy def loolu nag wa raawadathu ljibaalu summ min dahabin an nafsihi fa araaha ayama samami mu ni te jamono bi muy def loolu ngir xiif ñàkk lum lekk mu ni wa raawadathu sàkku na ko ci jamono boobu aljibaalu montagne yi as summ ya di way yëkkatiku min dahabin ngir ngir nekk wurus an nafsihi ñeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa araha dal di koy won moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ayyama samami bu mu ci dumooyu maanaam dumooyu ko dumooyu gu mat sëkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamono bi mi taxañ ay xeer ci biiram ngir di ko dëgërloo ngir mën a taxaw jamono boobu montagne yi ñi ngi sàkku nekk wurus mu moom leen kon kooku àdduna dëdd na ko àdduna dëgmal na ko mu bàyyi àdduna di nga gis nag nit ku naan la dama dëddu àdduna waaye àdduna bala nga koy dëggu dëddu dalay ñëwal ba pare waaye ku yóotu àdduna jotagoo ko naan da ngaa dëgg dëddu àdduna boobaa dëddu àdduna amagut moo tax mu ni wa akkadat feddali na zuhdahu dëddu àddunaam fiiha am na ñu koy delloo ci montagne yi am na ñu koy delloo tamit ci wurus yooyu dëddu gu mu dëddu wurus yooyu wala mën naa dellu tamit ci montagne yi montagne wurus la mu ni wa akkadat zuhdahu fiha daruratuhu inna darurata la taadu ala al isami wa akkadat feddali na daru zuhdahu wala wa akkadat feddali na daruratuhu lorug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam zuhdahu fiiha zuhdahu ak ak dëddoom fiiha ci àdduna ndax inna darurata naka loru laa taadu du jalgati mukk alal isami ci ku ñu ñoŋal ci aji ñoŋ ji mu ni kon wa kayfa tadcu ila dunya daruratu man lawlaahu lam tuxraji dunya min al adami mu ni wa kayfa taddu naka ngay wooye ila dunya jëmale ci àdduna darurata man loru koo xam ne lawlaahu budul woon moom lam tuxraji du génn ad dunya àdduna min al adami ci ak ñàkk koo xamante ni budul woon ak mooma kenn du bind àdduna bi ñu nekk kon naka ngay jële aajoom di ko teg ci àdduna ndax moom moo tax ñu bind àdduna kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lawla wujuduhu lawla wujuduhu lastamarati dunya ala adamiha kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci li tax ñu bind àdduna bi mu ni wa kayfa tadcu ila dunya darurata man lawlaahu lam tuxraji dunya min adami muhammadun sallallahu alayhi wa sallam sayidu lkawnayni walthaqalayni walfariqayni min curbin wa min ajami mu ni muhammadun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayidu lkawnayni mooy sangub ñaari nekkteef yi muy àdduna ak àlaxira àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo fiy sang al axira tamit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo fay sang mooy sangu ñépp yonentu yépp mooy seen sang ak nit simple yi wasaqalay ni ak ñaari ndijji bopp yi muy nit ak jinne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy seen sang wal fariqay ni ak ñaari kuréel yi ñooñ ñooy ñan minu man urbin ci arab wa min ajamin ak ci ajam mooy ñiy làkk lu dul arab mu ni nabiyuna al aamiru naahi fala axadun abarra fi qawlin laa minhu wala naami mu ni nabiyuna sun yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam al aamiru mooy ki aji digle an naahi ki aji tere fala axadun déet kenn abarra di gën a dëggu bu la neexee fii qawlin ci fii qawli ci wax laa fii qawli laa ci bu nee laa wala naamin wala bu nee waaw minhu ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ko gën a dëggu ci waxam bu nee bu nee waaw wala mu nee déet mu ni amul ku ko gën a dëggu ci ay waxam lépp lu muy tere yàlla moo tax mu di ko tere lépp lu muy digle yàlla moo tax mu di ko digle kon amut leen lu muy digle di ko teg ci leneen lu dul ndigalu suñu borom huwa alxabibu alladi turja shafaatuhu li kulli hawlin min al ahwaali muqtaxami mu ni huwa moom sallallahu alayhi wa sallam alxabibu alladi mooy sang ba nga xam ne turja def na yaakaar shafaatuhu am ràmmoom am tinoom li kulli hawlin di ñeel bépp tartar minal ahwaali ci tartari yowmal qiyaam muqtaxamin aji bëtt ko la fépp fu mu tànge sallallahu alayhi wa sallam lañ fa yaakaar amul kum du ràmm boo delloo ci ay xadisu safaa muy safaatul kubra ak safaatul uzma ak safaatul wusta yooyu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jagoo mu ni daa moom sallallahu alayhi wa sallam woote na ila allahi fal mustamsikuuna bihi mustamsikuuna bi xablin gayra munfasimi mu ni daa woote na moom yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ilallahi jëm ca yàlla rekk nag dong dong fal mustamsikuuna way jàpp ñi bihi ci sallallahu alayhi wa sallam mustamsikuuna way jàpp lan bi xablin ci ak buum goo xamante ne xayra munfasimin du aji dog mukk buum gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàpp ku ci jàpp jàpp nga ci buum goo xamante ni dina la yóbbu ba ca suñu borom faaqa nabiyiina fi xalqin wa fi xuluqin walam yudaanuuhu fi ilmin wala karamin mu ni faaqa kawe na moom sallallahu alayhi wa sallam annabiyiina moroomi yonentoom yi yépp fii xalxin ci bind wa fi xuluxin ak ci jikko walam yu daanuuhu jigewantewun ak moom fii ilmin ci xam-xam wala karamin wala tedd nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du moroomu kenn moo xam yonentu nga moo xam nit simple mu ni wa kulluhum min rasulillahi multamisun garqan min albahri aw rashfan min addiyami wa kulluhum ñoom yonentu yi sallallahu alayhim multamisun aji sàkkulan min rasulillahi ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam garqan moo xam ab tànq la min albahri ci géej lu ñu jël loola dafay des dara du ca yëngu aw rashfan wala ngeerit mina diyami ci waame mooy bu tawee taataa yu des yooyu rek comme taataa yooyu rek li nga cay tànk wala boog wa bu tawee taw waame li ngay tànk rek ci ndox moomu taa ku nekk daal am na looy sàkku ci sallallahu alayhi wa sallam ñoom yonentu yi salawatullahi alayhi wa sallam xarqan min al baxri aw rasfan min addiyami mu ni wa waaqifuuna ladayhi cinda xaddihimu min nuqtati al cilmi aw min shaklati al xikami mu ni wa waaqifuuna te way taxawlan ñoom yonantu yi salawatullahi alayhim ladayhi fa yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam cinda xaddihim fas seen dayo min nuqtatil ilmi ci tomb moo xam tomb xam-xam la aw min shaklatil xikami wala mask ak xereñ mu ngi askanale xam-xam tomb askanale maska ak xikma mooy xikma mooy xereñ kon ñoom ku nekk yaa ngi taxaw ci sa dayo te doo ko jéggi mukk moo xam ci xam-xam la wala xikma yàlla mu jagleel nuqtatul ilmi jaglee tamit shaklatul xikami ndax nuqta ci la ñu ràññeetlee xaraf yi nga xamante ni dañoo nuroo kon mooy leeral lépp ci lañu mën a xàmmee faa un ak xaafun ci lañu mën a xàmmee xaa un ak xaa un ba xaraf yépp jeex kon xam-xam nag xasiyaam mooy ràññeetle moo tax mu wax nuqtatul ilmi ak shaklatul xikami maska tamit daf na ci xàmmee ci niveau ñi nga xamante ni ci lañ tollu فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم من فهو مم صلى الله عليه وسلم تم متن معناه معنى معنى مبري بيرم وصورته أك ملوكان مبري بيتم لولو دوي دي ثم اصطفاه توك متنكو اصطفاه su mustafaaw topp mu tànn ko baari un nasami aji yatt ji mbindeef yi yatt ji xeet yi muy suñu borom xabiban muy soppeem yàlla defar na nit koo xamante ni biiram mat na biteem mat na waaye tànn ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag yàlla daf ko defar biiram mat biteem mat mu tànn ko loolu la rawe ñépp yàlla daf ko génne ci tànn ko ci tànneef yi ndax dafa bind yonantu yi tànn ci ay ndaw ndaw ya mu tànn ci ulul azmil xams muy Muusa Isa Ibrahim ak Nuux ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu tànn ci ñoom ñaar alxabibayni muy Ibrahima ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tànn yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam gënal ko ñépp ci li mu bind wa innaka la ala xuluxin azim mu ni munazahun an sharikin fi maxaasinihi fa jawharul xusni fiihi gayru munqasimi mu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam munazahun aji set wecc la an sharikin ci bokkaale maanaam kenn bokkul ak moom dara ci lan fi maxaasinihi ci ay ci ay ci ay taaram mu ni fa jawharul xusni dëgg dëggi njekk gayru munqasimin kenn du ko séddoo ak moom kenn du séddoo ak moom fii ci moom taar bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am kenn jigéew ko ba naan kii moo yonent bi ñoo bokk li wala ñoo ko nuroo mu ni kon daa maddaathu nasaara fi nabiyihimi waxkum bi ma chita madxan fiihi waxtakimi mu ni daa na nga bàyyi maa la nga xamante ni iddaatuhu woote woote woon na ko maanaam al iddia mooy woote lu nekkul ci yow an nasara nasaraan yi mooy chrétien yi fii nabi jihimi ci seen yonantu ba wax ku mu ne ta nga àtte bi ma sita ci lu la neex madaxan ci àtte ci ci ci tagg madaxan ci tagg sallallahu alayhi wa sallam fii ci moom wax takki mi ta nga xarañe ko nee na daal li nasaraan yi doon wax ni isa yàlla la bul ko wax liñ doon wax ni mariam yàlla la bul ko wax liñ doon wax ni yàlla yàlla la bul ko wax yàlla yàlla la maanaam yàlla mooy ñetteelu yàlla yi bopp bul ko wax inna laa saalisu salaasa mu ni yooyu yépp bul ko wax nag loolu ëppal rek lay doon nag waaye yonantu bi nag nit la du yàlla waaye nee na nag bu weesoo loolu lu la neex ci ay garaat rangal ko sallallahu alayhi wa sallam parce que am na mérito na ko nag wala am na lu ko ëpp moo tax mu ni wan sub ila zaatihi ma chita min sharafin wan sub ila qadrihi ma chita min izamin mu ni wan sub na nga askanale ila zaatihi ci jëmmi sallallahu alayhi wa sallam maa chita lu la neex min sharafin ci tedd nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu la neex ci tedd nga rek mën nga koo askanale mu ni wan sub na nga askanale ba tey ila qadrihi ci darajey sallallahu alayhi wa sallam maa chita lu la neex min min idamin ci kawe ci màggaay lu la neex waaye daal bul dépasser limite yi mu ni fa inna fadla rasulillahi laysa lahu xaddun fa yucriba anhu naatiqun bi fami mu ni fa inna fadla rasulillahi naka ngëneelu yonantu bi salallahu alayhi wa sallam laysa lahu déet di ko ñel xaddun dayo fa yucriba ba di ko tudd fa yucriba fa yucriba bay tudd anhu ci ngëneelam yooyu ngëneelam boobu naatiqun aji tudd bi bi famin ci gémmiñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi ko yàlla yóbbu ci kawe kenn mënu ko wax ci gémmañ mu ni kon dayoom kawe na law naasabat qadrahu ayatuhu idaman axya smuhu xiina yudaa daarisa rimami mu ni law naasabat su méngoo woon qadrahu darajaam ayatuhu ay kéemtaanam ay mujizaatam idaman ci màggaay axyaa dina dundal ismuhu tudd sallallahu alayhi wa sallam xiina yudaa jamono buñ ko woowee daari sa rimami ka nga xamante ni dafa faatu woon ba ay yaxam fënax yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam li ko yàlla jox ci màggaay su méngoo woon ak lim ko jox ay mo ci ay mujiza xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla jox na ko ay mujiza parce que mujiza bokk ay dalil la ci min dalaili nubuwa waaye lim ko jox ci ay kéemtaan àggul ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam daraja am ëpp na liñ ko jox ci ay kéemtaan mu ni su fekkante ni méngoo woon na kéemtaan yonent bi ak daraja ji mu amee boo nee rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ci borom yax yu fënax faatu bu yàgg mu jóg taxaw lam yamtaxinnaa bima taayalu uqulu bihi xirsan alaynaa falam nartab walam nahimi mu ne lam yamtaxinnaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nattoowuñu mukk bi ma ci loo xamante ni taayaa day lot al uqulu xel yi bihi ci dégg loolu xirsan ngir xër gu mu xër ci ñun xirsan ngir xër gu mu xër alaynaa ci ñun falam nartab sikkuñu mukk walam nahimi te gëlamuñu sallallahu alayhi wa sallam indiwul loo xamante ni dafay paas dépassé suñu xel yi xaatib innaasa bi ma yaarifuuna wa daalahum ma yunkiruun a turiduna an tukadaba allah wa rasula yontu bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko daan wax nee na waxaal ak nit ñi fu tolloo ak seen xel ndax boo ko deful ñu weddi yàlla ak yonentum bi moom indi lu ñu lenn loo xamante ni am na benn lëndëm lëndëm mu ni ayal wara fahma maanaahu fa laysa yura fi lqurbi wa fi walbucdi fiihi gayru munfasimi gayru munfaximi mu ni aya lottal na alwara mbindeef yi wala boog aya lott na alwara mbindeef yi fahma maanaahu dégg dëgg dëggi sallallahu alayhi wa sallam fa laysa yura déet deefe gis dëgg-dëgg sallallahu alayhi wa sallam fil qurbi ci ak jige yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo ko jigee doo xam dëgg-dëggam wal bu'di boo ko sori tamit doo ko xam dina la indil exemple ni mu waxee bayit bi bayit bi ñëw ci kanam nee na ghayra munfahimin te du muy du muy aji wedam nit ki nga xamante ne dafa jigee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala mu sori ko mënu koo xam ba boo ko doon waxloo ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dina dem ba ci yàgg mu taxaw te li te liñ war a wax ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam du jeex loolu mooy afhamahu loo xam wedamal na ko maanaam wax na ba taxaw te lam war a wax jeexut mu ni ndax lan du tax mu mel noonu mu ni kasamsi tadharu lil ayni min lil aynayni min bu'din saghiratan wa tukillu tarfa min amamin mu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa mel ni jant tadharu boo xamante ni day feeñ lil aynay ni ñeel ñaari bët min bu'din ci ak sori lool saghiratan di mel ni lu ndaw day mel ni bal jant bi yaa ngi koy seen mu mel ni bal kawkab boo xamante ni comme bal wa tukillu te day lot ak tarfa bët min amamin su su ko jegee kon su la jant bi dala sori lool kon xamoo dëgg-dëgg jant bi su la jegee sa bët dootu ko mën a gis mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la mel wa kayfa yudriku fi dunya xaqiqatahu qawmun niyaamun tasallaw anhu bil xulumi mu ni wa kayfa yudriku naka lay jote xaqiqatahu dëggi-dëggi sallallahu alayhi wa sallam fi dunya ku nekk ci àdduna wala ba qawmun aw nit fi dunya ci àdduna ñoo xam ni niyaamun ña ngay woy nelaw tasallaw dañ koo miis rek bil xulumi ci gént an huwa dif ko dafa misaal rek ni àdduna bi li nga fiy gis lépp du dëgg bala nga xam dëgg-dëgg nga fanaan bàmmeel ñetti fan wala nga fanaan bàmmeel bu boobaa loo gisati gént la waaye àdduna gi li fi ne lépp trikaas la ak ay ak ay gént waaye ku dugg bàmmeel rek gindeeku nga xam ni la ca des lépp dëgg la moo tax yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni bàmmeel mooy awalu manzila min manazilil axira mooy wàccuwaay bi njëkk ci wàccuwaayu al axira su baaxee léppay baax su bonee léppay bon kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay nit yoo xamante ni dañoo ne ci àdduna mënuñoo dab dëggi dëggi xam sallallahu alayhi wa sallam parce que dañoo nekk ci gént suñu duggee bàmmeel yeewu la ñuy xam darajay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ni fa mablagu lilmi fiihi annahu basharun wa annahu xayru xalqillahi kullihimi li xel mën a jot fa mablagul ilmi li xel mën a jot wala fi xam-xam yam fiihi ci sallallahu alayhi wa sallam annahu naka moom basharun mbindeef la ndax soo ko weesoo boo moytuwul dugg ci leneen wa annahu te naka lay mbir tey mbir xayru xalqillaahi kullihim moo gën ci mbooleem lépp lu yàlla bind imam Busayri nee na loolu rek moo fi nekk wax nañ ni bam ne fa mablagul ilmi fihi annahu basharun dafa tag mënatuda dem ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko àggaleel beneen satru bayit bi ni wa annahu xayru xalqillaahi kullihimi ala kulli xaal ñi ñi nett li loolu ci burda wa kullu aayin ata rusulul kiraamu biha fa innama tasalat min nuurihi bihimi mu ni wa kullu aayin bépp kemtaan boo xamante ni ata rusulu ndaw yi suñu borom yi indi nañ ko alkiraamu ña di way tedd muy yonantu yi atal kiraamu biha fa innama xamal ni daal ñoom ittasalat dañoo jokk rek min nuurihi ci leeru sallallahu alayhi wa sallam bihimi ñoom ñépp lépp lu waay am ci kéemaan dangaa jokk rek ci leeru sallallahu alayhi wa sallam ndax moom mooy tëbb ñépp nuurun min an nuuri qad awdatahu xikaman tafiidu faydan ala al axlaaqi yallahu nuuru yonent leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tafiidu faydan ala al axlaaqi kullihimi moo tax nuurul imdaad moom moo ko amee ñaar moo fi nekk al ijaad wal imdaad ijaad suñu borom moom moo koy amal lépp lu am moom moo ko amal wa awjadallah waaye képp ku ñuy tëbb sallallahu alayhi wa sallam moom moo lay tëbb nuurun min an nuuri xad awdatahu xikaman tafiidu faydan ala al axlaaqi yallahu xaqiqatu lkawni aynu daati talaatuha ifaadatu llahi nuurullahi yallahu imaam Busayri nee na fa innahu chamsu fadlin hum kawaakibuha yudhirna anwaaraha linnaasi fi zulami mu ni fa innahu naka sallallahu alayhi wa sallam chamsu fadlin mooy jantu ngëneel hum ñoom yonantu yeneen yi ciy des kawaakibuha ñooy ay biddiwi ngëneel yudhirna dañuy feeñal anwaaraha seeni leer linnaasi ñeel nit ñi fi zulami ci lëndëm gi kon day misaal ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy jant bi ñenn ñi ci des ay biddiw lañu seen daraja tuutiwut mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf leen a ëpp daraja moo leen di tëbb mu ni akrim bi xalqi nabiyin zaanahu xuluqun bil xusni mustamilin bil bisri muttasimi mu ni akrim kawteefu tedd nga bi xalqi nabiyin ci bindu yonent boo xamante ni zaanahu taaral na ko xuluxun jikko ju rafet bil xusni wala boog mustamilin muy aji làmbo bil xusni ci njekk ci taar muttasimin muy aji màndargawoo bil bisri ci mbégte sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko bind bind bu mat sëkk ba pare taareel la ko jikko ju mat sëkk ju rafet mu làmboo njekk ci bind màndarga woo tamit di bégale nit ñi kon ab juddu la koy couleur a ko gën muy jikko ngay gis nit kuy tiitaroo ab juddoom waaye lii couleur ab juddu moo gën muy jikko mu ni ka zahri fi tarafin wal badri fi sharafin wal baxri fi karamin wal dahri fi himamin mu ni sallallahu alayhi wa sallam ka zahri comme fleur fii tarafin ci nooy jikko ju nooy la amee wal badri comme weer fii sharafin ci tedd wal baxri comme géej fii karamin ci tab géej a gën a tabe ñëpp ndax mooy xëy jox ñëpp añ te du jàmbat mu ni wat dëhri comme jamono fii himamin ci yitte yitte jamono ku nekk xam na ko kenn du ko expliquer kenn mu ni ka annahu wa huwa fardun min jalalatihi fi askarin xiina talqaahu wa fi xasamin mu ni ka annahu dafa mel ni moom sallallahu alayhi wa sallam wa huwa tam moom kat fardun kenn la min jalalatihi ci màggaayam fi askarin ci ab armée yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo ko gisee dafa mu nekk ca seefu armée ba xiina talqaahu ci jamono ba mu tasee ak noon yi wa fi xasamin wala bokk sang boo xam ne dafa nekk ci biir ay surgaam ñu wër ko kon foo ko séene rek gis ci moom tedda nga ka annama lu'lu'ul maknuunu fi sadafin min macdinay mantiqin minhu wa mubtasimin mu ni ka annama dafa mel ni ki moom sallallahu alayhi wa sallam al lu'lu'ul maknuun moo mel ni wurusu lu'lu'ul maknuun al maknuun bari bu ñu mooy denc rek fi sadafin ci keesam mooy li li ñu téye wurus min maadinay mantiqin ci mbelluwaay ci ñaari min maadinay ni ci ñaari mbelluwaay rek la nam la bëgg a wax maadinay daf koo idaafa wa tuxzafu nuunaani lil idaafa mu ne wa min maadinay ci ñaari mbelluwaay mantiqin buy wax wa mubtasimin ak bu muuñee minhu ci moom sallallahu alayhi wa sallam wax ji génn ci gémmiñam mi ngi mel ni lu luul maknun mu ni muuñ tamit gi muy muuñ su su muuñee bëñam yi nga gis muy feeñ ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam reetaanam yépp muuñ la woon muuñ moo nekkoon reetaanam daawul xàqutaay noonu rek la lay melal waxam ak muuñam buy waxee ni gémm ni kàddu yi génn ci gémmiñam ak su muuñee bëñam ni mu meloon mu ni laa tiiba yaadilu turban damma azumahu tuuba li muntashiqin minhu wa multasimi mu ni laa tiiba déet benn parfum déet benn gët taadilu du yemmoo turban suuf soo xamante ni damma tappe na azumahu yaxu yonant bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni tuubaa texe ñeel na li mun tasixin ñeel aji ñeccax ndiku ji mooy ku ku ku xeeñtu rek wamul tasimin ak aji fóon minhu ci suuf soosu sallallahu alayhi wa sallam tedd nga am ak màggaayam kawe na bépp gët bépp laaj koroñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ummu sulaym nettali na ci xadis boo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tëddoon di siestre ci néeg ummu sulaym tàngaay bi jàpp ko mu ñaq noonu ummu sulaym di taatan ñaqu sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu yeewoo ni ko lii lan la mu ni ko dañ koy def ci suñu parfum yi parce que ñaq bi moo atyabu minal miski moo gën a teey gëttu misk moo gën a teey misk moo ko gën a moo ko gën a neex kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu jagle la amoon bunt bi nag dafa nekk bunt bu gudd looloo tax firi bi ñu daal di koy yàkkamti noonu pour bañ a guddal dars bi waaye ku nekk xam na ni tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bayit bu nekk rek mat na leçon waaye pour ñu gañ a waxtu ba mën a jeexal bunt yépp rek moom moo tax ñu gaawal ko noonu gàttal tamit détails yi nga xamante ni moom moo aju ci firi bi lépp lu ci dëng ñu xam ne ci gàttu àllu wala lépp lu ci jub ñu sante ko yàlla wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu